asalaamaaleykum Askanwi, assalam asalaamaaleykum mbokku internet yu Hann TV asalaamaaleykum jigen yi nga xamantene ñom la boko sama plateau bi ma am ci contentement ak mbégte bu mag parce que je suis là je partage mon plateau avec des mamans qui m'ont vu grandir donc euh, mu nek jigen yi nga xamantene jigen yu mën elles sont toutes radieuses, elles sont toutes merveilleuses. Ce sont des magiciennes, ce sont des femmes persévérantes. Et pour couronner le tout, ce sont des femmes de développement. Et voilà, je m'en vais leur donner le micro, nous présenter. Et au passage, je vous dis que j'ai un plateau spécial et je suis avec des femmes, des femmes de développement euh, du comité consultatif de la zone de Anne-Belair. Les c'est Amélie, mon ministre, présidente mu daal di nuyoo dal di partager comment dire présentation ak yeneen famille maman Ami ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mado asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Hann TV nuyu nan leen dalal nan leen kontaan nañu ci li nga xamante ni mooy plateau bi ngeen nar a am ak ñun jotaay di nuyu sama mbokk yu jigéen yi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi bokk ak ñoom activité yi ak yëngu-yëngu yoo xamante ni loolu moo waral jotaay bi. bokk ñoom lépp loo xamante ni mooy luy xew ci commune bi ñu war ko partager ak ñoom mu bokk ak ñoom lu bare bare bare kon wax dëgg yàlla ñoom tam maa ngi leen di dalal jàmm di dalal ñi nga xamante ni amoon ñu yéene ñëw te ñëw dootunoo ñëw di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu tàmbalee bisimilahi rahmaani rahim eggale ak alhamdulilahi rabbil alamin Merci beaucoup, Maman Amélie. Donc voilà, c'était la, présentation, euh, la présentation de leur présidente. Et après Maman Amélie, rek dañuy jox Tata Fatou Niane, euh, trésorier adjoint trésorier au comité consultatif mondial de di présenté wu. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa la leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen masawu coono bi ak toogaay bu yàgg bi mais lépp euh, kii bi jar émission bi jar

Like euh, nek trésorière bu ànd defar yarar léegi maman Awa Cheikh ma bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum ma ngi nuyo di ñaan yalla yalla may ñu commencer ko ci jamm eggale ko ci jamm man may adjoint trésorière ànd defar yaraax di am contente lool ci plateau bi. merci maman Awa Cheikh léegi ñu jottali micro bi rek euh, maman Amélie mu présenté wu. waaw salam maa ngi nuyu ñëpp. di di sant yàlla bu wér di julli ci yonant bi di sant tamit sama ñaari waajur may sant tamit ajaamaa amel lii mi xamante ne mooy suñu présidente te ñu bokkante moom plateau bi ak képp koo xamante ne bokk nga tamit ci bureau yi yi xamante ne ñoo tax ñu daje fi muy bureau comité consultatif bi ak bureau GIE ànd defar yaraax maa ngi nuyu ñëpp daal wasalaam merci beaucoup donc euh, mon ami euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen présentation léegi rek euh, nee nañu yéen jigéen yi nga ont été en train de se faire. yéen jigéen yi nga xamante ne yéen a yéen a boot njaboot gi ci kër gi vous êtes des femmes braves et donc nous sommes toujours dans le mois de mars c'est un, un, mois dédié aux femmes. Et donc, je m'en vais vous rendre hommage. Dylan souhaite encore bonne fête des femmes. Dylan, euh, bon, c'est à vous de m'encourager, mais je, je, suis toujours avec vous. Donc, voilà, on va commencer notre débat. Légui tay nak dañu nara waxtane suñu thème mu nek femme de développement. Mais là ñuy dugg ci suñu thème euh bëggon nañ touti rek euh, ñu waxtane ak présidente ak qui euh, dit maman Fatou Niane ñu wax ñu tout rek euh, ci comité consultatif bi euh, maman Amélie lan nga ñu mëna euh, comité consultatif bobu noonu. jërëjëf Mado comité consultatif bi mi ngi ñu ko créé en 2009 euh, bi ñu ko créé en 2009 c'était les 19 communes d'arrondissement ñom la mu joggé won ministère de la femme qui Khady Diop nekkoon temps bobu ci bokku bi moom moo wàcce woon ni bi yoon amul quinzaine de la femme bu folklore nanu taxawal ay comité consultatif wala ay cadre de consultation ñoo xam nu ñu ko tudde mais sur les 19 communes d'arrondissement ci loolu la sunu comité consultatif juddoo mu nekkoon le 27 septembre 2009 bi ñu ko ootee ñu amoon ñu amoon ay presque 100 100 100 femmes yo xamanteni dañu ñëw représenter seen groupement ndax té bobu ta ñu bëri yëgugul ko won ni taxawul bureau ni taxawalee bureau yalla def na ñu amone siège bu mo ni nga xam siège bi état mo ñu ko défaral ñu am ñu bénéficier wu ci 16 cas fois yi amone au Sénégal ñu bëgg dundal suñu siège ñu ne kon nañu indi fii suñuy réunion ak suñuy activité jàpp nag la 27 boobu ba léegi ñu maintenir la 27 de tous les mois les jours ouvrables kon ñun ñu ngi continuer suñuy réunion activité ak suñuy fonds propre lañ jëkkee ci fonds propre yooyu ngeen jëkkee fonds propre lañ jëkkee maanaam bi ñuy ñëwee dañoo def suñuy adhésion des groupements, pas individuels, adhésion de toutes les organisations féminines. Parce que je groupement, je Mais toutes les organisations féminines lay wax mais ku ci je rek nangul nan présidente contact bi wax la li nga participer

C'est euh, notre première rencontre ici, ñu ngi ko le 29 puisque le 27 bi dafa tombé woon week-end dañu ne le 27 bu tombé week-end il faut que ñu reporter jusqu'au lundi ñu fait ko lundi le 29 novembre 2010 ci lañu le fi ñun ñëpp jour euh fukki groupement lañu ñu woon ak juroom ben ñi adhéré. léegi euh, parlant d' adhésion yooyu nag doguma la sama fan léegi maanaam adhésion yooyu euh, jigéen bu mu bu mu neex nga ñëw boo déggee ne que comité consultatif am na ci bërëb bi ndax jigéen bu mu neex mën na ñëw rek euh, bokk wala adhérer ci biir comité bi. non non puisque dañu ne woon par groupement maanaam ni ko kii waxee rek dafa ne boo waxee groupement da ngay génnee daayira yi mais dañu ne organisation boo gis organisation féminin léegi nag da ngay ñëw nga adhérer. mais boo ñëwee nag présidente bi moom la ñuy jël référence am jël numéro téléphone am puisque comme ñepp ñu dajé ay nit bu ñu dajé il faut yenn say ku nekk di soxla sa morom donc il faut nga bàyyi fi say coordonnées jour bobu sax ñun 16 groupement rek lañu won euh kérok bu ñu njëkkee def suñu cotisation ñu ngi amoon 47000 euh jour bobu lañu commencer di verser xaalis ci suñu caisse légui versement kees yooyu nu muy demee seen biir versement versement caisse bobu non ngeen di joxe. wa lolou mom mo nekkoon adhésion bima la don wax. juste pour les adhésions puisque bon à juste pour les adhésions. puisque bobu amaguñu fonds bo xamné mën commencer di financer puisque organisation euh, adhésion moko cotisation mensuelle. d'accord les cotisations mensuelles donc euh, maman Awa Cheikh euh, ak euh, Tata Khady légui ñu gis né que. Euh, maman Awa Cheikh Dieng moom trésorier trésorière bu ànd defar Yaraax euh, maman Khady Fall nekk secrétaire général secrétaire administratif bi ndax rek euh, yéen yéen a ngi gis seen ci biir comité consultatif non. noonu. mu nekkee 2001 ñun waa ànd defar Yaraax yàlla def ñu dajaloo def groupement groupement activité bi ñu njëkk a def mooy teinture la njëkk a def ñu def ko ci biir dëkk bi. kenn ku nekk indi ci sa kees cinquante mille cinquante mille bi ñu ko indee ñu def ci teinture bi ñu demee nag jël bi ñu defaree suñuy teinture ba pare dañoo jaay suñuy drap ak suñuy napp ñu dem nag ba euh, yëf yi gën a yaatu ñu yaatal ko ci biir dëkk bi ba ñu nekk ay 23 groupement ba léegi ñoo ngi mënee suñuy activité activité yi ni mëne mooy chaque le 13 dañuy ñëw fii cotiser sunu 5000 francs cotisation yi suñu pare daal li joxe suñu prêt bu ñu joxee suñu prêt ba pare bu bu joxee ñiy weer wi ñi ci des toog xaar li ñuy xaar mooy bu sa tuur jotagul doo mën a jël xaalis boobu doo mën a jël xaalis boobu yàlla def nag ñun ci suñu wàllu bopp si sunu xaalis bopp rek la ñuy mëne ndax dem ñu lebi banque yi defuñu dara waaye ci sunu xaalis bopp la ñuy mëne kenn ku nekk li ngay liggéey da nga ciy yëngu boo ci yëngoo bu weer dee nga ñëw jox sa cotisation jox sa versement normalement. merci beaucoup maanaam euh, maa Awa Cheikh moo ngi noonu ñoo ko déggandoo moom nee na ni que moo ngi gis boppam ci comité consultatif xanaa rek mu jottali micro bi Tata Khady Fall. salaamaaleykum euh, bu dee si cadre comité consultatif bi man man naa ne comité consultatif ay groupement ñoo ko ñoo ko constitué. dafa am groupement yoo xamante ne ñoo nekk ay membre fondateur man sama groupement muy GIE takkul liggéey jariñu si membre fondateur yi si la si la bokk wante nag euh, bi ñu bi ñu nekkee membre fondateur ba pare dañoo adhéré chaque mois dañuy cotiser 2500 teewul tamit dañuy am ay prêt yoo xamante ne ay financement si loolu la ñuy gisee suñu bopp si suñu biir ci financement yi ngeen di donc oh, c'était ça euh, elles ont pu nous faire la présentation du comité consultatif et ni nga adhéré au comité consultatif mhm. maman Ami je sais que vous êtes un peu stressé les comme ça nous hein? <laughs> euh, continuer euh, femme de développement waaw gis naa nag ñi fi nekk ñëpp ay femmes de développement lañ. Mhm. ñi nekk ci stand yeeg ñi toog si plateau ñoom ñëpp ay femmes de développement léegi maman Amady mu bëggoon rek nga wax ma ana nan la ñuy ràññee femme de développement wala lan moo tax ñu naan ne ah kii de femme de développement la. jërëjëf Mado de développement dafay dafay jëkk dañuy dafa jëkk am les informations du développement. parce que soo bëggee nekk femme de développement. te bootu jiwoo kenn ci koo xam ne ñu ngi yëngatu ci développement doo ko mën a nekk te fii à Hann li tax ñu am chance en 1987 ministère de la femme daf nu booleek les agents des économies familiales ñu doon nekk fii ci développement communautaire seen siège nekkoon Castor mhm. boobu temps dafa amoon euh, les encadrements yu wàcc ci terrain bi di seet jigéen ñi nga xamante ni bëgg nañu ku leen jàppale boobu secteur informel lañ nekkoon ñu leen di encadrer di leen wax ñu ñëw adhérer ci kuy ci ci la fédération des des groupements boo xam ne dafa ëmboon des dix neuf communes euh, des dix neuf communes euh, du département de Dakar léegi ñun ñu bokkoon ci onzième groupement bu demoon adhéré à la fédération man bu ma demee di adhéré dix groupement moo ma fa moo ma fekk man bi ma demee nag ba gis opportunité ya fa nekk ma gis ni il y a des opportunités de formation yoo xam ne dañ ko war a jox jigéen ñi ak ak opportunité formé la yow pour nga mën a nekk une femme de développement yéen jikko lanuy lan lay wax ne la nii nga mën a mel fii nga war a bi ma ko gisee nag ba man tamit wax dëgg yàlla ma xaw fa yàgg tuuti ba nekk fa ay presque dix ans ci laa ñëw sensibiliser fii à un village ba am dix groupement am am waaw dix groupement en 97 amoon naa dix groupement yo xamni ñu ñëpp dañu amone dañu adhéré won iya. ci développement communautaire ñu am chance nak wax dëgg yalla di recevoir des formations mba su fekk ni ñëpp duñu dem man su ma mosaan dem ba ñëw damay restituer mais restituer verbalement parce que bobu amako ñu siège femme de développement nak man damay wax nit ki moy engagé wu ni man dama bëgg nek femme de développement ndax femme de développement boko bëggé yow di nga joxe sa xam-xam di nga am di nga joxe sa xam-xam di nga waxe sa am-am pour que nit ñi mën la tricher ba am li nga am di nga waxe sa mën-mën di ko wane ba nga xamante ni yow ñi ngay wan dinañu mën a dinañu mettre ak yow point d'égalité nga nga am de développement ñoom ngay ñëw fekk leen ñu commencé depuis depuis 2009 nga ñëw tay ji adéré ñun la yow même pied d'égalité ci tollu ci développement d'accord ci rek euh, femme de développement aussi que femme de développement nga ci ken teg si nangu liggéey ba nangu liggéey boo xam nangu liggéey ndaxte euh, mën nañ ne référence nga ci ñenn ñi léegi maman Awa Cheikh ma bëgg xam ndax nekk femme de développement teg si bëgg a yor kër teg si bëgg a yor sa activité ndax loolu mën nañ ko waaw mën nañ ko boole ndax man yàqalu ma sama dara tax yàqalu ma sama dara waaye nag bu développement taxawee lépp lu ma mënti dem tamit sama xel du nekk foofu de ci développement bi lay nekk ndax activité boobu rek laa xam. ndax dama nek xalé bu tuti duggu ci nek ak ay mag mag yu bari ño xamni sax man nan ma mam ñi man nan ma yaay ma nekkon ko xamni nak sunu ma san sax di joxe xaaliss dama daan ragal ni xaaliss bi buñ ma joxe juróomi junni sax damay tit ni duma ko jël waye nak fi ñi nekkon monitrice yi daan andal dem nañ ba ragne man ni man may ciatu groupement ba yalla def nak ma fekk fa sunu papa ju bax muy pa yusufa diouf suma ma dama ragal mu ni ma jëlal bu yagge di nga dem waye léegi kuma jox 10 millions sax ma dem ak mom ndax femme de développement dafa neex ndax man lepp lu ma am ci développement la ko am à cause de sunu présidente bi lepp lu ma am rek ci développement la ko amé yor ci sama kër di du ma catu sama di ci def sama activité yu bare nak li ma la wax léegi rek su développement taxawee leneen taxaw su ma demee ca loolu sax sama xel du nekk ca loolu moo tax développement bépp jigéen boo xam ne rek man nga ko rek naka jege ci say morom yu koy def doo ko réccu musku kon nag développement dafa nekk loo xam ne lu neex la ndax am soxla wàññeeku gesu ubbi sa caabi sa armoire fajal ko sa bopp te doole bi kenn boo tëddee sa xel day dal. merci beaucoup maman Awa Cheikh donc maman Cheikh vient de dire que euh, femme de développement Elle a boole yeneen une activité wala boole sa propre activité Légui, ma waxtaan ak euh, maman Fatou Niane euh, maman Khadifal, autant pour moi Légui, maman Khadifal, Fall nga

d'ici si bi dañ ko wara traité avant entre deux réunions fofu dañuy woote téléphone yi ñu ñëw fi en rencontre wax dajé fi waxtaane tas bu fekkee ne lo xamanté né dañ ko bëgg dañ ko wara a pour mu tassaré comme ngi mel ni ji xam nga tey ji ñi ngi ci 8 8 ñi ngi ci mois de mars damay profité aussi occasion bi sax di sargalaale jigen ñëpp ci sargalaale jigenu commune Hann Bel-Air yëpp ndaxte tamit période bi daana fekk heure bi ñu nekk ci yeneen activité di xool nu ñuy organiser wo tenu ñu wara sol nañ la suñu suñu programme bi nuñ koy teurel te lepp nak comme ci cadre bobu rek la duggé lepp rek fi lañuy dajalo bokut bok xalaat waxtaan ba jakk d'accord ci xalaat dal merci beaucoup. merci beaucoup maman Hadifa euh, maami li euh, ñu ne femme de développement lim boole nak dafa bëri. waaw jigen ju mën goor la lam boole dafa bëri lamu bo ci ginnaawam yépp dafa bëri mais téréwul rek euh, mo ngi mo ngi continuer di wëyel ay propre activité légui est-ce que nekk femme de développement dëgg-dëgg yomb na ak ci société bi nii ñu nekk. en tout cas Mado femme de développement ci jamono yi ñu nekk pour man yomb na yombul ndax bu yo fi muy jafee rek mooy fi nga amulee ku la encadré bu fekkee ni amoo encadrement dina jafe ci yow waaye bu fekkee da am encadrement ndaxte boo nekkee femme de développement dina la jàngalee des besoins prioritaires maanaam lan. boole nga kër boole nga jëkkër boole nga doom boole nga mais li lan mooy les prioritaires loo xamante ni yow loolu nga war a def kon kër kenn gënu ko nekk priorité mhm. dëkkandoo kenn gënu ko nekk priorité ñi ngay romb di dem di yëf fa nga xamante ne fa ngay tase ak say morom foofu loo fa jëlee fekk yow préparé nga si ndaxte dégg nga mu ne Pa suba Diouf moo doon suma borom dafa dem ba nekk góoru développement ñoom ñii ñëpp seen jëkkër su may woote téléphone ñoom may wuyu ku ci ñëw ñu la mama amee woote na demal nga wuyu ko pour lan ñoom comprendre na ni ñoom ñii li ñuy def avancement rek lañ ci gis gisuñ si benn lin xam nga sànq aw Cheikh nee na lu ku ma jox million ma dafa am formation en gestion dafa am formation en gestion ba nga xamante ni du sëy ci mbiram kii nee la du duñ dem banque waaw no étudier suñu bopp parce que ñun pare yi ñuy joxe fii sax amul benn intérêt muy la treize muy la 27. amul benn intérêt mais ñu ngi sukkandiku ci suñuy cotisation mensuelle. Mhm. parce que boo xalaatee cotisation mensuelle lim lay indil ki jël pare nga koy nga teg ko intérêt mais ki jëlul pare du la indil intérêt te cotisation mensuelle dafa nekk loo xam ne ñëpp ñoo ko war a def. soo xasee ba ni salaamaaleykum adhésion bokk si naa ci mbooloo mooy adhésion tant yaa ngi dund tant yaa ngi fi. da nga war di yónnee sa cotisation mensuelle même soo mënulee ñëw parce que yow yaa ñëw ñu ban bokk naa ko par te ci cotisation mensuelle yooyu ci la ñuy doxalee suñuy fond de roulement yu ci baree bari ndax si la ñuy def suñuy épargne si la ñuy def suñuy prêt revolving si la ñuy génnee suñuy téléphone day am sorti dépense yoo xam ne foofu lañ koy génnee ba balaa ñuy am partenaire ñu appuyer financièrement mhm. mais ñun wax dëgg yàlla ñoo organisé wu ba nga xamante ni ñun balaa partenaire di ñëw ñun ñoo ngi doon marché comme il faut donc doonte prêt yi barewul woon mais ñu ngi ci sukkandiku lu woon di xaar nag partenaire bu ñu fi pour jàppale ñu. femme de développement toujours. Mhm. tam dama leen di wax su ma leen du may waxtaan ak ñoom dama leen di wax ku yàkkamti bul dugg <laughs> ku yàkkamti ku yàkkamti am. ku yàkkamti xam. Mhm. ku yàkkamti mën bul dugg développement parce que ñett yooyu ngay wut ci développement te benn yoon ci mhm. di nga xam di nga am di nga parce soo xamee. ci ngay amee te soo amee ci ngay def sa mën-mën te li ngay mëne ci ngay xool say tolof say avancement looloo waral 8 mars journée d'évaluation bis bu nekk mu koy wax du journée folklore dañ ko ci boole nag pour xumbal animé mais 8 mars dañ ko daan def pour xool lan mooy suñuy point fort lan mooy suñuy point faible maanaam fan la ñu nasaxe lan mooy suñu perspective lan la ñu bëgg te amagul opportunité may doole yi di nelaw nan la ñuy def ba yeeku yooyu lañ doon jéem a traité ci journée 8 mars préparé ko nga xam ne su boobaa dañuy invité les partenaires wax leen lii ma la wax fuñ ci toll su ko defee dina am partenaire bu ne ah ñii kon ku leen jàppale ci volet bi dina baax ku leen di loolu waraloon journée 8 mars te looloo ko waral ba léegi macha allah merci beaucoup maman Mili maa faat ñaan euh, nga dégg sa natango lim ñu wax légui rek euh, ci femme de développement ak société bi ñu nekk euh lo loo lo xamné rek mën nga ci mën nga ko ci dolli. Ah, waaw wa li ma ci di rek moy femme de développement référence la wara doon femme de développement dafa war am encadrement femme de développement dafa war am formation. parce que boo amee encadrement te amoo formation dina am foo xam ne di nga xaw a laaj encadrement aussi encadrement bu baax formation muy formation bu dëgër formation du kese dem ñu jàngal la nu ñuy transformer céréale déedéet ci la bokk mais maa ami mun naa wax ne daf ñuy jàngal naka la ñuy toggee ci suñu biir néeg naka la ñuy dundee ak suñu njaboot naka la ñuy ce ak suñu dëkkëndo savoir faire savoir vivre savoir être C'est moy les principaux actes du développement Awa Cheikh wax nako sank puisque def nañu formation en gestion financière femme de développement ont joxé 10 millions de dina xam naka la koy gérer du ci am teuf bu waré rembourser day rembourser à temps parce que vous ci la bok vous rembourser le 27 tok le premier nga ne dama amone soxla formation lo am am soxla vous moy dogal lépp parce que dañuy gens, ah nit day rek mais yalla moy mais une bonne formation bu ko yalla dogalé bu buñ la bu boobaa mun nga verser liñ la jox parce que dañuy naan toujours euh, groupement du benn nit ndax bu dee benn nit day mel ni benn jikko ngay am mais ay nit bu ñu dajaloo ku nekk ak jikkom ku nekk ak gis-gisam ku nekk ak jëfinam mais boo amee une bonne formation yàlla dimbale la ku nekk bu boobaa di nga mun a jëflante kon loolu laa amoon ci li may wax ci gàttal rek puisque li ci des yet ñoom ñëpp mun nañ ko wax. <laughs> si la bokk wi maman Awa Cheikh. ndax li ngeen ni groupement waru nekk benn nit ci loolu laa lay dëggal ndax boo xoolee kuréel gi fi toog kenn ku nekk ak sa tur kenn ku nekk tamit ak sa bis bis ba mooy lan mooy jour bi nga wootee muy le 13 amaana. kenn ku nek du tok kenn ku nek mu dem sa keur na la indi ñaar fukk la indi juroom ku nek da nga am sa bis bop man mi di wax ak yeen le neuf moy sama bis bu ak samedi ak dimanche nak jigéen ñi wara nek seen kër nag toppatoo seen jëkkër yi ma daq ko waye altine seen keur kum fa fekkul dina la alaman ndax lolu moy tax nga xam ni ngay doxale sa xaliss bi sa bir damay gëna deugal li présidente wax juko bobu def nako ci ñun juko bi mu def ci ñun nak ñu koy santé yalla bu baax ndax heure bu du jot mu ñun ñi yoré bureau bi sax dañu fi jitu yor sen xaalis amana do woy ken ñepp ñoy ñoo dajalo ken ku ne xam nga sa sart suma la lebalee sama 300 mille yi xam nga ni nga ma koy fayé suma la joxé 600 mille yi xam nga ni nga koy fayé légui sax jigéen ñi sen bop dama leen doon fayé ci 5 mois waye légui dañ koy def 4 mois 4 mois biñ koy def dama ci gëna contente diñ dem ba jëmmi jamono yoo xam ne xëy na sax 3 mois lañ koy def ñaareel ba li naan wolof dalay jànge nooy nappe bu la ko jàngalee di nga mën a dem ndax li mu wax ci xaalis bi rek moom laay dëggal fii ku fi nekk ku nekk xaalis bi nga yor di ko liggéey doo ko seeyal mukk su nekkoon fukki at tamit danga naan lii kat mooy ndey ja naa ko téye su ma ko téyee bu yàlla defee dat ba nga war a dem Mali wala nga war a dem fenn moom ngay génnee amaana doole bi kenn. kon nak jaarama sunu présidente macha allah ñun de ay ndaw lañu waye réccu wunu luñ doon ànd ak mom li tax ñu ñak ko réccu mom ci wala bopam fiñ tollu sa dafa ni mag la xam ngeen ni tay wërul de waye dañ ne ko no tok ci plateau bi plateau bi muy tok nak ñun xalé yi rek lay wan yoon wi dañuy ñaan yalla yalla bàyyi ko fi may ko wër may ko sutura lum am bokk nako ak ñun lum xam bokk nako ak ñun information boobu ngay wax da koy wàccee ba mu baax ndax bu nu ñu xase ba yegg si mu ne xaar leen ma joxe information ñun tam information yi mu jox dañ dañuy dem ca base bi wàccee ko suñ ko wàccee ca base ba femme de développement daal dafa war am pësteef soo amee pësteef di nga xam di nga gis te di nga ko jariñoo <laughs> loolu loolu moy euh, femme de développement femme de développement moy li don wax sànq rek li mu composé moo bëri li ci bopom mo beuri donc tour bi légui euh maman Khadifa, yow nga nek secrétaire administratif mhm. donc femme de développement wara a am organisation mhm. donc comment est organisée votre administration waaw comme euh, nous koy waxé rek euh, jigen ñi dañoo organiser wu am bureau xam nga bureau bi bu amé présidente moy bop bi léegi day am présidente am secrétaire am trésorier am des adjoints euh, am am am membre yo xam te ay membre actif lañuy doon dañuy bok ci bureau bi yor ay commission di ci comme par exemple bu ma jëlee cadre GIE ànd defar yara comme ci bir, am nañu commission bo xam te ne ñoo yore bi am nañu commission bo xamante ne ñoo nekk ci production céréales locales. am nañu tamit commission formation muy kurel yo xamantene tamit kon cela veut dire fofu da décentralisation fay dugg décentralisation des activités nata tamit fofu kenn rek monopoliser wul activité yëpp dañ ko décentraliser ku nek rek mën gis sa bop ci kurel gi bu ñu le le treize bi il y a la secrétaire ñu sama ginnaw mom mom ci bopam moo yéré feuille de présence am am registre de présence am ñëw jël présence am yi jël sa numéro de téléphone nga émarger xam nga foofu tamit ci administration la man na comme par exemple bu fekkee dañoo am ay cours dafa am loo xam ne dama koy liggéey seen ci ak projet bi mi ngi mel ni tey jii projet céréal bi euh, yàlla dafa def bi muy dugg ci commune bi mu nekkoon euh, projet boo xamante ne euh, suñu au passage mais muy waa Trust Africa ñu am ko tamit par le biais de la commune de Hann par le maire ñu ngi koy féliciter di ko remercier au passage légui nak euh, biñu ñuy taxaw bi projet bi taxawé dañ na tamit projet bi ku ku ko wara jël il y avait des critères dafa amone ay critères yo xamanteni mom lañ moom pour le projet par exemple critères yi ben muy il faut ga am registre de commerce am nina ya muy këyitu judd bi il faut tamit reconnaissance juridique structure bi il faut tamit nga am trois ans trois active dernières années nga sa activité trois ans nga du nga commencé à nga activité bi trois ans nga feussal liguey bobu si par matérialiser matérialiser ko si document lolou ñu après si la ñu choisiree GIE ànd defar yaraax ba yàlla def ñu yegsi si liggéey bi fii muy muy liggéey sa produit yaa ngi ne la sa ginnaaw incha allah bés bu ñu si tolloo euh, rek. leeral nga ñu ko organisation am ci. donc femme femme de développement nekkul ne que aussi que. c'est vrai il a il a euh, elle a elle a des activités multiples que aussi euh, dafay désordre wala autre parce que après tout c'est une femme léegi ma dellu si waa ak suñu présidente ma ami léegi ma ami euh,

dafay fekk mu xam yow yaay li ngay doxi ndax am na njariñ wala déet te loolu première des choses mooy soo génnee ba am benn formation boo xam ne maanaam day ne ñu dem génn def benn causerie boo xam ne dafa baax ci njaboot bi sa doom fekkewu ko ñëwal def restitution ak say doom bala ngay génn fenn ñëwal def restitution ak say doom ba pare nga di leen jàngal yow li nga nekke soo fekkee ni yow yaa ngi leen di jàngal ni euh, métier du tuuti activité du tuuti te lu mu mënti doon dañ koy bindee di ko teg ci yoon te lu mu mënti doon dañ koy partagé kooku sa njaboot dootul jafe pour nga gérer leen déggoo li ma la wax léegi nee naa la suñu jëkkër yëpp ay développement ay acteur de développement lañu. Mm-hmm. parce que dañ noo jàppale ba nga xam ne suñuy njaboot joindre nañu. Mm-hmm. dëgg la amuñu chance dëgg dëgg dëgg pour njaboot gi ñëw fekk suñu fii mais man. ñooñu tuddooma leen njaboot ndax njabot gi ñun dañ len jur te dañuy dem di sey dañuy dem man ñuma tuddé njabot gi moy les jeunes femmes ñima ma bokkal la commune nga xamni ñom ñi ngi fi nek seen kër di sey yore seen borom kër yore seen dom man ñoñ la def njabot te ñoñu lay andal ba nga xamni di lepp lo xamanteni xamna ko dina len ko wax suma togué dina len superviser ne len tey yéenay def réunion bi mais dañ koy def comme il faut su amee lu fay man leen su beneen ne te su ma koy wax sax dama koy dee sama adjoint présidente ki topp ci man ndaxte du lépp ngay wax ci kaw donc ko koy dee wala nga bind ko ko su ko defee su beneen ne mu daal di tegu ci yoon bi. loo ñu mën a yaatal rek euh, ci rapport d'activité yoo ngeen def après chaque évaluation. comme par exemple su ma ñëwee tey ci Trust Africa. ñoom ñoo xam te ne ñooy suñu partenaire yi xam te ne ñoo financé projet céréale local bi comme par exemple ñoom bu ñu lay financé dañ lay wax carrément xaalis bi balaa ñu la koy jox il faut que tu te présentes ce budget. Tu as ce que tu veux. Si tu fais ce budget, il y a des lettres qui envoient, tu fais un questionnaire. Tu envoies une série de questionnaires, nous tente de envoyer par mail. Si nous parlons, si nous savons, si nous financer, si nous les financer, comme par exemple, nous avons donné 25 000 dollars. 25 000 dollars, nous avons 25 000 dollars. Nous avons donné une première tranche. Nous la première tranche yow yaay liggéey ak première tranche une exécuter, tranche. Nous première tranche bi budget financier pour établir tranche nous nous la la première tranche moulin décortiqueuse pour construction abri pour intrant pour petit matériel de démarrage bi comprendre nous avons nga am say facture facture d'achat boo si la ngay nga ñëw nga présenter sa activité yi tamit si si sax formation 10 e femmes c'est si la 10 femmes c'est parce presque nous si bari ñu ngi fii salle bi partager avec plateau dont la présidente Les formation 10 femmes c'est motax pour moy tax tay ji ñu mën am produit de qualité bi xamantene am nañ ko léegi jigéen ñi bi ñu leen yóbboo ñu def formation bi ñëwé tamit jëluñu san xam-xam rek téye dañu def démultiplication formation à la base bop tamit nit ñi sasoon pour ñu démulti def démultiplication de cinquante femmes dans un premier temps ñëw nañu bi ñuy bi démultiplication bi jour presque 48 femmes la ñu ça nous restait 12 femmes 12 femmes doon au cours des productions au cours des productions bu produire ñu jël ñaar leen formation pour ndax te tax nga budget budget la mën waroo dépasser ce budget pour bu ko defee budget boobu du duñ ko dépassé affaire formation boobu tamit non la noonu la demee woon daal. léegi su ma ñëwee première tranche bi tamit boo paree première tranche il faut tamit nga fournir des rapports mooy rapport narratif à rapport financier. rapport narratif ma lay expliquer un exemple rapport narratif bi ma def rapport narratif j'avais fait un rapport de 17 pages. au passage maa ngi nuyu ngi saluer les deux maa ngi leen doon tuddee les deux de Trust Africa muy Fakumba ak Aminata mu xool mu xool rapport mu ne ma xadi li ngeen liggéey ak li ngeen def ëpp na 17 pages bi ma waxee loolu j'avais tous les documents après cela laa yokkaatee bind bind bind ba am am plus de 25 pages xam nga déjà kon loolu muy wane suñu force liggéey force force bi tamit jigéen ñi tamit am nañ ci doole tamit ñoom booy présenter sa rapport ça ne ça ne veut pas dire que ñoom li ñu la jox rek ngay présenter rapport de dañ naan la yow loo am. ndax projet céréale bi ñun financé nañ la première tranche bi jàll na 17000 dollars yow loo si def si boobu nag ñun si la ñu jëlee ñu jël suñu xaalis lu mel ni si suñu kees lu trois ni 300000 tabax si mbaar bi nga xam ne fa la jigéen ñi di toog di mooñ. ñu jël 525000 jënd si cantine bi xam te ne moo nekk fii si bunt bi boobu jigéen ñi ñoo ko jënd comprend nga te surtout lool tamit frais de démarrage yi frais yooyu jigéen ñi ñoo ko defoon ñu toll si cent quelques mille. pour pour wan rek ne lolou buma ko évaluer mu nek 1800 dollars yo xam tane ci si première tranche bi rek ñun jigen ñi participer nañ ko ci gis nga li ma lay waxaat tamit gis nga avant ñuy présenter finaliser rapport boobu sa dañ mané avant ñuy finaliser rapport rek ñom approuver nañu avant document bi dañ ma doon yakam sa pour ma envoyer document bi par mail ba ñu mëna xam ba ñu mëna a suñu ba ñu mëna wax fixer ñu pour suñu deuxième tranche. waaw te te deuxième tranche boobu tamit bi ñu koy jox tamit xam nga tey foofu tamit mën naa fi dañ na ñoom presque c'est rare ñuy financer groupement ba muy am ba muy ba première tranche bu ñu la ko joxee boo liggéeyul normal da ngay restituer xaalis boobu kon nag c'est très rare. ñom ñu financer la ba nga am sa première tranche bay jot sa deuxième tranche bi ñu deuxième tranche bi tamit yalla def na tamit ñu exécuté ko def tamit ni mu waré def ci li ñu waroon liggéey yépp ba am defaat bi ñu ma bin rapport narratif bi def rapport financier bi ñu paree tamit ñu joxat ñu troisième tranche bi bi ñu troisième tranche bi tamit ñu ngi ñuko jox presque le 1er juin 2015 ñu war ñu paré ci le 30 juin 2016 légui bi ñu paree euh, troisième tranche bobu nag

ay bureau yépp daal waa kon maa ngi yemale foofu kat nga li waxtaan bi li duuf si cin li yëpp li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li daal merci beaucoup. léegi ma waa Ami ma bëggoon rek euh, euh, nga wax ñu tuuti euh, ci njëriñu rapport d'activité yooyu. ma jàng ci lu bare la rapport d'activité yooyu ak ma cee jàng lu bare. donte sama jàng soriwul woon mm-hmm. waaye dama cee gën a amaat dëgër laay mm-hmm. te fu ma taxaw ci jigéen ñi maa ngi leen di wax naka la ñu war a mën a préparer seen bopp mm-hmm. non seulement Khady wax na dañu laaj euh, la situation de de nos activités des trois dernières années bi ñu ko laajee fekk ñun céréale bi amuñu woon unité mais ñu ngi doon liggéey en vrac mais à chaque fois doon doon daanu di perte mais dama doon wax Khady bindal dañu perte dina ma ajaab man ne ko bindal dama perte. mais gis nga loolu bi mu ko liiree mu ma ma mama ami lan moo taxoon ngeen di perte ma ne ko amul woon moyen capacité produire grande quantité. bis buñ sa tollee dinañu rattrapé wu. te fii may wax ak yow tollu nañ ci. kon te rapport d'activité rapport financier ak narratif kenn ku ci nekk toujours damay wax borom gerte caaf bi. war na koy defal boppam borom beñe bi war na koy defal boppam ndax si lay nattee bu fekkee ni lan aw seex wax na ko beneen moromam bi nekkoon HLM bi mu demee seet groupement bi yaayam fondé woon am amuñu benn registre bu leen jox boo xamee ni dafay am lu nu mën a sikkoon ko ndax ñun tooguñu dee leen wax dañoo génn suñuy registre mhm. fépp fu ñu doon produire ñu wax ne démarrage produit fin de production lii la ñu amoon ci matière première lii la ñu am ci produit bi ni boole ko ak suñuy pré bi defal ko beneen kees loolu nag la fekkul ci beneen groupement bi munuma mère amee ñooñu binduñu woon dara dama dem ñuy wër ay kaye ku nekk naan diwa yoroon bee kaye ni <laughs> ñooñu daal yéen daal yéen a ëpp chance konte ñu xamee ni activité dañ koy fullaal di ko fay daal première activité bi ngay jëkk a def mën na am doo ci am li nga bëgg waaye plus que nga continuer say activité plus que ngay gis sa te loolu moo na dal ci céréale bi macha allah may gërëm de passage sunu productrice ndaxte wax dëgg yàlla bu fekkee ni ñoom

ñu daal di génn suñuy kilo produit fini ñu def suñu calcul man ma macha allah kon jigéen ñi yóbbu nañu fi nga xamante ni fa lañu ñu bëggoon te wax naa ko merci merci à vous toutes ici hein parce que euh, tay euh, yaatal ngeen tax ngeen tay ñi nga xamante ne suñu mbokk internet ñuy seetaan xam tay lan mooy femme de développement xam njëriñu femme de développement mais aussi xam njëriñu rapport d'activité activité yooyu parce que après chaque évaluation groupement yi dañuy def seen propre rapport d'activité donc voilà c'était ça